أهلهم الله بأن كانوا للمصطفى ودينه ظاهرا أما بعد فإلى الولد الحبيب والسيد الأديب الأريب الحاج عبد الله الثاني بن إبراهيم الأول بن الحاج عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يليه الإعلام بأني وقفت على رسالتك الغراء وإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأسأله تعالى أن يزيدك بسطة في العلم والجسم وإدراكا في العلم والفهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وإني يا ولدي وقرة عيني أوصيك وقرة عيني أوصيك وأوصي نفسي بتقوى الله في السر والجهر وتصحيح العقد مع الله ألا تقصد بحركاتك إلا وجهه تعالى لا سيما عند قصدك بيته المعظم فلا يكن لك غرض إلا امتثال أمره تعالى بأداء فريضة الحج له اقتداء بالرسل وأخرج قلبك من جميع الأكوان لا تساكن ولا تؤالف إلا خدمة سيدك ومولاك وخالقك والرقيب والمهيمن عليك في سائر تطوراتك مع شهود من من منته في ذلك فعليك بتلاوة كتابه حق تلاوته وذكر الله باللسان والقلب وكثرة الصلاة على النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق kasrati duaai li nafsika wa li walidayka wa lilmuslimina walmusafiru duauhu mustajaabu wa yustajaabu duaa inda ruyati lbeyti awalan wa inda alxajari alaswadi walmultazami wa inda beyti wa inda baabi lbeyti warrukni lyamani wa taxta mizabi rahmati وعند مقام إبراهيم وعند زمزم وعند الصفا والمروة وعند السعي بينهما وعند مسجد الخيف وبمنى وبمنى وعرفات والمشعر الحرام بالمزدلفة وعند العقبة وبعد الجمرتين فأكثر من الدعاء فإن الله تعالى ما أعتى أنبياءه وأولياءه إلا الدعاء وما فتح لك باب الدعاء إلا وفتح لك باب الإجابة إذ هو الكريم الوهاب الغني المجيد هذا بعد إتقان الفرائض فالكل تبع للفرائض وقد أذنت لك يا ولدي فيما عندي من طريق الشيخ رضي الله عنه walaysa indi akbara min hada wa qad raditu anka ridan taamman wa sallim minni ala alxabibi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kullama daxalta alayhi wala tansa walidataka albaarata wa ixwataka wa axawatika wa axawatika wa ixwanaka fillahi alladina kasurat xuququhum alayna بحسن ظنهم وخدمتهم وبذلهم الأموال فادعوا الله لهم جميعا ولا تنسى جدك وسميك فإن كل ما نحن فيه حسنة من حسناته رضي الله عنه ولا تنسى جميع الأشياخ وكل المسلمين ومن له منة علينا رجعك الله سالما وغانما حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا والسلام إبراهيم بن حي عبد الله لا تربي باي doomam xalifa alxaaji abdullahi moom la ko bindoon fekk mu ngi dem màkka jàngale yu bëree bëree bëri moo ci nekk moo tax ñi tànn ko pour jàng ko tey gannaaw bum sante yàlla nga xam ne mooy borom alam bi lépp mooy rahmaan mooy rahim mooy malik yawmi diin santaat ko yàlla mi nga xam ne amul doom amul bokkaale ci nguuram amul ndend yàlla teg ci loolu ne nga màggal yàlla gépp ak màggal bokk na ci màggal ko nga dàqal ko yooyu yëpp nga xam ne moom xellut ci moom doomi aadama mooy ñàkk doom gis ne dafa manqué ndax dafa am lu mënut bëgg doomam mënal ko ko dafa am fu mu newut bëgg mu nekk fa am bés mu jugee fa bëgg lii fi des fi yàlla nag amul soxla ci yooyu la doomi aadama di defee doom moom ñàkk soxla loolu mooy tegtale ak matam moo tax mu ji mujjee ci kabiru takbiran santaat yàlla mi nga xam ne moo ñi jubal ci lii te nekku ñoon di ci jubee bu taxutoon ak juba jubal yàlla santaat yàlla cant gu bëree bëri julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy tëjëli feeñuwaay tëjëli bu njëkk ki nga xam ne jaam la waaye jaam bi nga xam ne boromam kii dëgg mi yàlla tabaraka wa taala daf ko def muy sang ndax wax na ne ana sayyidu waladi adama wala faxra càng googu yàlla tabaraka wa moo ko ko def yàlla ko gënale ci mbooleem yonentu yi gannaaw boo xamee ne alquran xamal nañu ne yonentu yi dañoo gënante tilka rusulu faddalna baadahum ala baad yàlla ko def buur moom loo ko nguur gu màgg màgg te moom dundut lu may ak njaam rek ndax bu fekkee buur yi dañuy àtte moom àtte kat la woon jiite ay xare jiite kat la woon lépp loo xam ne nii buur a koy def yonent bi sallallahu alayhi wa daana ko def ba mu des nguuru waaye nguuru wut yàlla jox na ko doole buur yi àddina te taxut mu masa yëg lu may ne moom jaam rek la ba ko yàlla dimbalee ba ubbiloo ko màkka nga xam ne noonam yi nga xam ne ñoo bokk lépp xem ci màkka ndax ñoo bokk dëkk fa ñi génnee ko fa lor ko lor ñi muy ànd ak def ko liñ ko def yëpp ba mu demee ba am doole dugg ci seen biir dafa yeesal doxam ba sikkiñam mu ngay laal tegam bi ngir am kersa ci yàlla mi ko jëlee ci fàttewul mukk bés bi nga xam ne ñàkk na doole bay dox di lakkatu ci ay xunt yàlla may ko doole mu dugg màkk ci pënd boo xam ne ñi ànd ak moom seen pëndi ngawar yi rek def na bëccëgi màkk mu mel ni guddi ci la Abu Sufyaan wax Abbas ne ko sa nguuri doomi mbokk mi rey na de mu ne ko lii du nguur lii nu bu watu kon nga xam ne maanaam mazhar bi nga xam ne mooy mazahir nguur yi seeni feeñuwaay seen doole seeni kàttan seeni atte loolu yëpp yàlla moom loolu na ko ko waaye ootewul buur jaam rek la oote moo tax ba kenn ci waa màkk yi tiim ko di lox def na ko hawin alayka ma ana bi malikin jarul ngay tiit yëf yi lu oyof la man duma buur innama ana bnu mraatin kaanat taakulu lqadida bi makka doom yi jigéen bu daan lekk ay seel fii laa ci makka maanaam comme yow laa nit la comme yow sa mbokk laa sax pour ñemeel ko boppam moo tax ba waa màkk yi taxawee ñi ko doon tooñ ñu ko doon lor ba mu leen laajee maada tazunnuuna anni faa'ilun bikum lu lu ngeen foog ne moom laa leen di def xaalu xayran yow lu baax rek nga ma def axun karim wabnu axun karim mbokk mu baax nga doomi mbokk mu baax nga loolu bu fekkee ne kuy oote danga baax walla ngay oote ne doomi mbokk mu baax nga xam nga ne loolu mooy sa taxawaay dëkkin wi dana gën a yomb ala alihi wa sahabatihi julli ci ñoñam julli ci saxaabaam saxaaba yooyu nga xam ne yàlla moo leen jagleloo ñi nekk ndimbali diineem gi nekk ndimbali yonentum bi sallallahu alayhi wa xam nga ne eh, yàlla mooy ndimbali yonentu bi sallallahu alayhi wa waaye moo tànn ay nit jagleeloon leen boole leen boole leen ci loolu nga xam ne moom def na ko ba pare moo tax mu ne yàlla moo leen jagleloo ñi nekk eh, ndimbali yonentu nekk ndimbali eh, diineem gannaaw loolu mu ne mu ngi jëm ci sama doom sama soppe sang ku yaru ku xelu alxaaji abdullahi saani nga xam ne mooy ñaareel di doomi ibrahim mi ñett mu mi njëkk doomi alxaaji abdullahi kooku mooy alxaaji abdullahi doomam gannaaw bu mu ko nuyoo salaamaaleykum wa rahmatullahi wa mu ne ko maa ngi lay xamal ne taxaw naa ci sa leetar bu rafet bi gis naa leetar bu rafet bi nga ma bind maa ngi sant yàlla mi nga xam ne kenn du buur lu may moom kenn du yàlla lu may moom maa ngi koy ñaan mu dolli la ci xam-xam dolli la it ci jëmm dolli la ci dégg ci xam ak ak ak ràññee mu ñaanaat rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurata ayuni waj'alna lil muttaqina imama ba tey loolu mu ngi koy ñaan ci moom bi maana yàlla yàlla nga ñu may ci suñuy jabar ak suñu ngirte sedd xol def ñi ñi ay njiit ci way ñeel way gëm yi mu nekk ko yow sama doom yow sama sedd xol maa ngi lay dénk di dénk sama bopp waaye bu mu dénkaanee ragal yàlla da ngay gis ne waxtu wu nekk boppam lay jiital ci lool maa ngi lay dénk di dénk sama bopp foofu moom mu ngi ci biir dénkaan boobu dañuy wax digleel sa jëf ñu topp la yàlla dafa wax isa bna maryama ne ko iz nafsaka fa in hiya taazat fa izi nnaasa wa illa fa staxyi min rabbika waatal sa bopp ba pare bu sa waado waadoo nga waat nit ñi bu fekkee waado sa bopp wala waat nga ko te waaduwul sax yow rusal yàlla mu gis la ngay wax sant nit ñi loo xam ne defuloo ko yàlla nga wax ne li ma taquluuna maa laa tafaluuna kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa tafaluun wax ngeen di wax loo xam ne nii du ko def moo tax ubbi buntu waade it buntu bu diis la maa ngi lay dénk dénk sama bopp ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbbu maqaama yeeg may yeeg feeñ waayi yim bëri bëri bëri ñenn rek la yàlla wax ne ñoo gën a tedd fa yàlla inna akramakum indallahi atqaakum ki leen gën a tedd ñi leen gën a tedd fa yàlla mooy ñi leen gën a ragal yàlla waaw borom xam-xam am na ngëneel borom alquran xayrukum man taallama alqurana wa allamahu linnaasi waaye ku leen gën a tedd ñooñ ñëpp waxut ne ñoo gën a tedd wax na ñee gën waaye ku gën a tedd fa yàlla mooy ku gën a ragal yàlla rek yowmal qiyaamati yàlla dana taxawal jaam yi ne dama fooral suma askan ne mooy ñi gën a ragal yàlla yéen ngeen fooral seen askani bopp naan diw doomi diw doomi diw ak diw ak yax bu rëy bu kii bu tuuti bu nangam tey nag seen askan yooyu yëpp neenal naa ko enal muttaqoon ana ñeem ragaloon yàlla kon loolu mooy askan bi nga xam ne ni mooy askani dëgg-dëgg te moom mooy teraangaay dëgg-dëgg ndax mooy teraanga bi nga xam ne nii dafay sax ndax teraangaay àddina bés bés yàlla yi ci bési àddina benn bés rek ni ki juneexat la juneexat nag kenn yaakaarut dund ko ci àddina bi bàyyi ne ko na nga ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb na nga wéral sa pas-pas ànd yàlla sa jëngatu yi bu ci jublu daara lu may jëm yàlla ji tabaraka wa taala rawatina nag ba ngay jublu néega bi yàlla bu màgg bi loolu dafay melal waxtu wooy jublu li nga xam ne dëgg-dëgg ku ñi xàmmeewu tim xam nañu yàllaa ko moom xam nga ñi xàmmee xam nañ ne sa jëfi jaamu yi ak sa jëfi aada yëpp yàllaa ko moom waaye ma ne ñi xàmmeewul sax xam nañ ne jëfi jaamu yi yàllaa ko moom kon boo mënta góorgóorlu ba sa yëngatu yi ñeyal yàlla ci sa mboolem yëngatu yeeg sa mbooleem dal war ngaa bàyyi sa xel ci li nga xam ne nii moom yàlla moo ko moom moom léewu la ci dara mooy waxtu boo xamee ne yaa ngi jublu jaamu yàlla bul sàgganee bul sàgganee eene nga nit mën naa miin lu baax ba bu koy def sax du yëg ne mu koy def waaye loolu mbaaxaŋ ci waaye bu borom sàgganee yëfam yu baax dafay nekk aada loo ko miin miin bul sàgganee eene innamal amalu binniyaati jëf yi eene rek ñoo ko ñoo ko ñoo ko moo tax mu ne ko rawatina boo jubloo néegam yàlla bu tedd bi bul am benn bëgg-bëgg ci loolu lu may topp ndigali yàlla ci joox farataay aj ñeexal yàlla ngir roy ci yonentu yi ndax xam nga ne yi ñoom ñëpp aj nañ néega bi ndax xam nga ne ibrahima woote na aj wa azim fi nnaasi bilxajji yaatuka rijaalan wa ala kulli daamir yaatina min kulli fajjin amiq kon moom moom xam nga ne aj na téere nee nañ aadama aj na moo tax mu ne ko na nga aj néegam yàlla bi ngir roy ci yonantu yi te buñ waxee loolu roy ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama mooy jubluwaay bi dëgg-dëgg moom mi nga xam ne moom moo aj gannaaw boo xamee ne arab yi ñu ngi doon aj waaye ba mu ñëwee aj dafay aj jàngale aj ne xudu anni manasikakum seeni ponki haj seen jëfi aj jëlee leen ko ci man kon ku aj dëgg-dëgg yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ngay roy ko na nga génnee ci sa xol mbooleem kawnu bi bul dëkk kenn bul miinante kenn lu sa jaami borom bi liggéeykat yàlla yi rek kii sa sang leetar bi dama koy jàng lu fa bëri bari waaye keroog dama ko jàng mel ni baat bi maa ngi koy door a gis moom moo xaccaat ci leetar bi laa tusaakin wala tu alif illa xadamata sayidika wa mawla bul dëkkoog bul miinanteeg kenn lu may ñi nga xam ne liggéeykat yi sa borom bi lañ sa sang ki yàlla tabaraka wa taala nga ku dem foo xam ne da dem pour jox say farata nit ñi soxla yi xacc nit ñi jëmee foofu dafa bëri moo tax bàyyi bul ànd ak kenn bul miinante kenn bul dëkkaale kenn lu may ñi nga xam ne xam nga ne ñoom waxtu wu nekk ña ngi ca yooni liggéeyal yàlla rek tabaraka wa taala ki nga xam ne mooy sa sang te mooy aji bind sa te mooy lay fuglu te moo méngoo sa mbir lépp ci sa mbooleem nga def ko ci sa mbooleem tatawuraat yi maanaam ci sa mbooleem xaal yi rek sa mbooleem xaal yi na ci def loolu loolu nag ànd ak shuhuudi minnatihi loolu nga boole kook seedu mayam yi moom yàlla tabaraka wa taala xam nga melokaano moo mu tudd melokaano bu rafet rafet la waaye boo ko amee tim bum tax yow nga gis ci sa bopp loolu lay jàngale defal daggal lépp lu dul yàlla tabaraka wa taala jublu ko moom kenn ci yëngatu yeeg ci dal yi bul àndaaleeg lu may koo xam ne ci moom la jëm loolu nag boo defee loolu ba pare na nga ko booleeg nga seedu may yàlla yi tabaraka wa taala mooy nga xam ne yàlla moo def askan la waaye yow mënoo loolu mat ci yàlla rek lay jugee du jugee ci jaam jaam dafa manqué mat ci yàlla rek lay jugee moo tax waxtu boo gisee mat rek fàttalikool ci kim jugee mu yàlla tabaraka wa loolu buntab sant la sant moo lay ubbil buntab ndolal bàyyi ne ko nanga nga taqoo jàng alquran dëgg-dëgg jàng nga taxoo jàng alquran dëgg-dëgg jàng loolu dafay dafay àndaaleeg li alquran di diglee nga koy def li alquran di tere nga bàyyi ko mun nga jàng alquran fekk sa làmmiñ rek moom mooy jàng alquran téere bu barke la fu fu dara ci alquran ruus barke boobu dana ci mën ngaa am yool mën ngaa am nangam waaye xam nga ne ki koy jàng fekk mu ngi dégg li téere bi di wax moo ëpp yool ki koy jàng te xamul li téere bi di wax ki koy jàng te xam li téere bi di wax te bu diglee mu def bu tere mu bàyyi kooku moo gën moo ëpp yool ki nga xam ne mu ngi koy jàng te topp ay ndigalam bàyyiwut ay tereem ki koy jàng fekk mu ngi mel ni mu ngi koy déggee ci yàlla tabaraka wa taala di teewlu màggaay ak yàlla tabaraka wa taala di teewlu màggaay bi nga xam ne melaw boromam la jox ko màggaay gi nga xam ne borom bi mu jugee na màggee noonu la màggee nga xam ne loolu ëpp na ay xuruf xam nga ne ko kooku jàngam alquranam moo gën jàngam alquranam ki nga xam ne nii mu ngi koy jàng di ko dégg mel ni moom mooy jàng donte mu ngi topp donte mu ngi terewu donte mu ngi dégg ay maanaam kële nga xam ne mu ngi koy dégg mu mel ni incha allah tabaraka la jugee ànd ak teewaay ak màggaay ak yàlla gi nga xam ne du tàggoog màggaay ak yi kooku jàng alquranam mooy dëgg am njàng ak tudd yàlla ci sa làmmiñ ak ci sa xol tudd yàlla ci sa làmmiñ ak ci sa xol am na leetar bu mbindoon mag ñi ñenn ci waa fayda koosi bi ci waa Mauritanie nga xam ne fekkee nañ ci fayda ci kosi cheikhaani ku ñuy wax Mouhamed Val Ahmed bin Muawiya ñooñ kenn déggatu leen sax ci mag ñi fekk woon koosi lañ yàlla xam na leen pays bi xam na leen bàyyi gannaaw bu mu leen dénkee wax leen ne njëriñal xam yàlla ak jeexitam mooy ajuk sa xol ci yàlla ci bàyyi lépp leneen lu ma yàlla tabaraka wa taala ak di tudd yàlla dappet ci sa mbooleem xaal ci sa làmmiñ ak ci sa xol ci sa jëmmu ak ci sa roxo ak ci sa mbóot xamal ne yàlla mu ngi toogaale ki nga xam ne mu ngi koy tudd bu fekkee tudd yàlla bu ci dara nekkutoon lu may la yàlla wax ne ana jalisu man zakarani maa ngi jékki xaale ki nga xam ne daf may tudd ni nga xamee ne noonu nga amee lataif sa yooyu noonu la yàlla amee péyam yi nga xam ne bu ci nekk benn latifa ci sa lataif yooyu sa làmmiñ sa xol sa sa sa sa roxo sa jëmm sa mboot bu ci nekk rek war naa jokkoo jokkoo bu mat bu booba yow nga am jokkoo yàlla jokkoo bu mat boo xam ne sa tudd nga ko ci sa mbooleem xaal xam nga xarit bi nga xam ne daf laa ubbil lépp kooku la ngay am ci moom bokkut koo xam ne benn buntu rek la la ubbil boo buggee yàlla ubbil la bunti PM yëpp yow tim da ngay tudd yàlla ci sa mbooleem melokaan yooyu baay ci mi nga xam ne xam naa mas nañ ko fay jàng bu yàggee it ba ko mbootam laajee yaa ibrahimu anta waliyullahi yow ibrahima ndax yow wàllu yàlla nga qultu naam mu ne waaw wa dalili ala dalika anni waalaytuhu bi zikri sirran wa ruuxan wa qalban wa qaalaban wa waalaani bi taysiri umuuri almutaalliqati bi zahirin wa batina ndax yow wàllu yàlla nga la mbootam laaj mbootam rek la doon wax waxutoon ak moo tax ba mu demee am na ci loo xam ne def daf koo nëbbu mu ne ngir bañ jàmbur taxaw ci waaw wàllu yàlla nga mu ne ko waaw li ci sama tegtal nag wax ne wàllu yàlla parce que damay naaw ci jaww ji wàllu yàlla parce que damay dox ci ndox mi waxul wàllu yàlla lu may damay soppi ay damay def ay xar di def ay kii waaye wàllu yàlla laa li ci sama tegtal mooy man dama méngoo yàlla ci di ko tudd yàlla wax na ne fazkuruni azkurkum ashkuru li teg takfurun tudd leen ma ma tudd leen yàlla bu lay tudd kay kon moom mu ngi la méngoo kon yow boo tudd yàlla yi yaa ngi méngoo yàlla moo tax mu ne wàllu yàlla ndax man dama méngoo yàlla ci di ko tuddu ci sama sirru ci sama roxo ci sama xol ak ci sama jëmm moom it mu méngoo ma ci xéwénal suñu mbir yëpp ci zaahir ak ci baatin loolu it kayfiya la boo xam ne bokk te kayfiya yi gars yi bind di wax ne bu ko defee man faala wajada kada waaye kayfiya de méngoo yàlla mu méngoo la fexe ba méngoo ko ci saxaal yëpp mu méngoo moomit it saxaal yëpp kon saxaal dara du ci dara dara du ci yàqu Baay waxoon na ne kaana lillaahi nga kaana lillaahi kaana kaana mu ne mu ne loolu garante la ci ñàkk a yàqu ak ñàkk a yàqule ndax boo nekkalee yàlla yàlla nekkal la yàlla du yàqu bu la yàlla nekkalee doo yàqu boo nekkee fi yàlla it yàlla nekk fi yow yàlla lu nekk it du yàqu mu ne xaay Ablaay jàngal alquran dëgg-dëgg jàng tuddal yàlla ci sa làmmiñ ak ci sa xol bërilal julli ci yontu bi sallallahu alayhi wa sallama yonent bi màgg bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa bi nga xam ne mooy fatix li ma ughliq bëri ñaan ñeel sa bopp bëri lal ñeexal say ñaari wàjjur xam nga jàngale bi pour ñëpp man koo jëriñoo la xam nga bu ne ko woon bëri ñaan ñeel sa bopp bëri lal loo may ñaanal keneen koy jàng da ngay ne moom baay boppam la doon ñaanal rek ñaan lul waaye jàngalewul ñaanal waajur waaye fii mu ngi ngi jàngale ñaanal waajur ba yow mi koy dégg nga xam ne sa waajur a ngi ci barab boobu bëri la ñaan ñeexal jullit ñi tim ne ko kuy tukki ñaanam lu yàlla nangu la yonent bi moo ko wax moo tax ba mu xéemoo ci ki nga xam ne mu ngi tukki fënd ba pare di wax yaa rabbi yaa rabbi ba pare ne waaye li muy lekk daganut li muy naan daganut annaa yustajaabu lahu fu fuñ koy nangulee borom xam-xam yi dañuy wax ne gannaaw bu yonent bi indee sabab yi nga xam ne yëpp ci sababi nangu ñaan la tukki ci sababi nangu ñaan la yaa rabbi yaa rabbi ci sababi nangu ñaan la ndax ci tur yàlla yi la qul idullah aw idurrahmana iyamma tad'u fa lahu al husna waaye am na sax ñoo xam ne dañoo wax ne yaa rabbi yaa rabbi mooy ismul azam gis nga ko ci ñaani bàyyi yonent bi sallallahu alayhi tudd waa ji mu ngi fënd mu ngi tukki mu ngi wax yaa rabbi yaa rabbi ba pare di lekk lu daganut di naan lu daganut fu ñu koy nangulee waxut ne duñ ko nangul de an na yustajaabu la wax waxut ne laa yustajaabu la waaye mu ngi soril sax kooku ñaanam nangu ngir ne gannaaw bu amee sabab yi yëpp dafa am beneen sabab bu manqué mooy lekk lu tey moo tax baax na jaam bi di dimbanikoo lekk lu tey ne ku kuy tukki ñaanam luñ nangu la te danañ nangu ñaanit waxtu woo xamee ne jaam bi mu ngi jàkkaarloog néegab yàlla bi ci yoonam mu njëkk maanaam gis ga rek danañ nangu ñaan ca xajarul aswad danañ nangu ñaan ca multazam multazam mooy diggante buntu kaaba gi ak xajar bi am na diggante bo am na diggante boo xam ne lu tax ñu tuddee ko multazam nit ñi dañ koy tatafu maanaam saxaaba yi xadis yi ca gën a wér jugee ci ci saxaaba yi la jugee waaye ñi wax ne yonent bi sallallahu alayhi doon def mooy da ngay ñëw ba foofu nga taf ci sa dënn bi say loxo yi ak sa lex bi doo ko def teg ko ci teg ko ci taax mi di ñaan loolu tax ñu tuddee ko multazam maanaam yow da dafa dafa mel ni ñëw rek tatafu ko sax fa foofu barabu nangu ñaan la waaye noonu lañ fay ñaanee boo fa mënee àgg ne nag boo demee boo amul ñu la dimbale ñaare doo ko mën a jot danañ nangu ñaan foofale danañ nangu ñaan ci néeg bi ci boppam néeg bi kaaba gi yëpp la biir kaaba gi sax ci boppam ndax yonent bi sallallahu alayhi dugg na ci kaaba gi julli foofu ñaari rakk farata lañ fa dul julli ndax kuy julli farata kaaba gi nga war a jublu te boo nekkee ci biir jublootoo kaaba gi yow danañ nangu ñaan fa ruknul yamaani ruknul yamaani mooy pegg bi ngay jot bala nga àgg ci xajarul nga xam ne digganteem ak xajarul aswad foofu rek moo am ñaan goo xam ne li ñaan yu bëri bëri ñi wax ngay ñaan lii booy wër kaaba booy nangam booy nangam amul benn ñaan bu wér wër kaaba gi lu may ci diggante boobu diggante ruknul yamaani ak xajarul aswad foofu moom rod na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim fa doon ñaan rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina azaban naar lu may loolu amul benn ñaan boo xam ne ci ñaani kaaba la boo xam ne nii lii wér na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñaan ci borom xam yi nag ñaan nañ seen ñaan yi ñu ngi ko tànkee ci ñaan yonent bi sallallahu alayhi loo ci man baax na waaye boobu mooy bi nga xam ne moom boo fa accès loolu nga war a tànn di ko ñaan ndax loolu mooy sax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa ko ñaan foofu ak cheron mizabi rahma mizabi rahma gis nga mooy weñ googu nga xam ne mooy yolwaayu ndox mi rek la bu bu tawee foofu la ndox mi yol wàcc di di taw boo demee baronu ko boo demee baronu fa barabu nangu ñaan la wax nañ ne bàyyi nee na ku fa ñaan soxla téeméeri yoon mën a do yàlla dana ko nangu loolu xel nangu na ko ndax foo xam ne barabu nangu ñaan la li ngay ñaan itteel la ba nga àgg ci téeméer passé nga juróom-ñaar fukk nga xam ne moo gën a bëri ci lim yi daanaka nga àgg ji téeméer te xam nañ ne dogu ak loru bokk na ci sababi nangu ñaan yi nit ki bu amul benn sabab ci sababi nangu ñaani yi lu may loru rek aman yu jibul mu tara ida daahu loolu sabab la ci nangu ñaan ndax xéeféer sax àgg na ci ñaan yàlla may ko xam nga ne Ikrimatu bin Abi Jahlin ci ndox la nekk ndox mi bugg leena a seen bato bugg a suux mu ñaan yàlla na yàlla bu nga musalee ci lii ma dugg ci lislaam yàlla musal ko kooku ittiraar rek mooy sababu nangu ñaanam googu ca maqaama Ibrahim foofa barab bi nangu ñaan la fa zam-zam fi zam-zam ne barabu nangu ñaan la léegi nag zam-zam doo xam fu mu ne maaseel nañ ko mu ngi ci biir xaram bi xamatoo fu mu ne ndox ma rek ngay gis xanaa booy gisee ndox mi nga naan ki nga ñaan si soxla ci ci ñaan gi ndax li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne maa u zam-zam li maa shuriba lahu ndoxi zam-zam loo ko naanee rek la ne moom mu ngi koy naan ngir marag yowmal qiyaamati fa safa doji safa fa marwa doj ak marwa booy dox seen diggante foofu loolu yëpp barabu nangu ñaan boo demee ci masjidul xayf ca minan nga xam ne fa la yonent bi newoon ci minan moom la bàyyi am wax am naytu laa abgi siwa alxayfi innahu maxattu xabibi fihi dahran walam yazal foofu barabu nangu ñaan la léegi hôtel nelaw la ko def boo demee guddi boo demee ba foofu boo buggee julli sax da ñaan nit ko may ma ma julli waaye nga fekk ne hôtel la boo xam ne kenn du fay ku ñëw rek tëdd nelaw rek waaye terewut boo fa àggee mën ngaa nag ñaan sa soxla ndax barabu nangu ñaan la te ci barab yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw la neewoon ca minan wa minan ak minan lépp barabu nangu ñaan la arafaat lépp barabu nangu ñaan la donte yonent bi ci jëbal raxma la taxaw waaye dafa wax ne arafa yëpp mawqif la masharil xaram ba tey dégg nga ca musdalifa barabu nangu ñaan la waaye musdalifa ci boppam moom lépp bu nangu ñaan la ca aqaba dégg nga barabu nangu ñaan la ak gannaaw ñaari jamra yi barabu nangu ñaan la li tax mu wax ne gannaaw ñaari jamra yi sunna ci sànni jamra bu njëkk bi ak bu ñaareel bi boo sànnee ba pare da ngay taxaw jublu xibla ñaan yàlla waaye jamra bu mujj bi boo sànnee doo ñaan dara da ngay sànn rek continuer dem sa yoon bàyyi na ko bëri ñaan ndax yàlla nag joxul yonentam yi ak wàlliyoom yi lu may ñaan ko ñaan rek la leen jox te ne ko yàlla du la ubbil buntam ñaan lu may mu ubbil la buntam nangu kon xam ne nañ xam ne nangoo ñaan ci lijaaba la bokk ñaanal ma ma am lijaaba nangoo ñaan ci lijaaba la bokk imaam Junayd dañ ko wax ne ko foo foo jëlee li nga am mu ne bi julusi taxta haasi durjati sirasina sana waaw toog rek ci ron escalier yi fanweeri at maanaam fanweeri at mu ngi dunguru rek yow ku tabewut sax boo ko fan fanweer at mu may la dunguru nag ki nga xam ne moo wax ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma nangu leen moo tax yi la jafe ñaare doo ko mën a ñaan de nga commencé rek boo ko rek nelaw mooy yi la jafe doo ko mën a ñaan waaye bu la yàlla bàyyee toujours nga koy wax rek da nga ko bëgg da nga koo nar a am ndax mu ne yàlla mooy karimul wahab mooy ki tedd ki maye haakoon mooy ki doylu mooy ki tedd lii yëpp nag mu ne ko lii yëpp nag ma la digal nag na xam ne mooy gannaaw boo xereñee def farata yi nag gannaaw boo defee farata yi defen ba gën a baax waaw parce que ñu julli te sàgganee julli yi toog ba guddi ngay ñaan dëgg-dëgg baax na waaye tim sa sa xaalang lay tontu di la wax ne lisaana xaali pay bi mu naan la waaw yow nga yow nga sàgganee yi ma la sant ba pare bu di ma sant yow jaam nag moom du ñàkk ay bunt yu muy neexalee boromam yaa am man maa xamul rek waaw ak noo mën a mel rek yow bu la neexee nga ñaan sa borom waaye bu fekkee da ngaa bugg a ànd ak teggini pays yi bala nga sonn ci naafile yi sonnal ci farata yi waaw bala ngaa wasifa na fekk na yow julli bala nga wir bala ngaa waxi wirdo na fekk ne wér na la yow man ngaa xemanal farata waxuñ ne kum wéragut loolu waroo koo jël ndax tudd yàlla mën na laa ommat ba jëmee la ci topp yàlla ni ko yàlla bëggee way bàyyi ne ko yii ma la dénk yëpp rek gannaaw na nekk na nekk soxlaay ñaareel waaye bu njëkk bi mooy xewanal farata ndax yi may wax yépp ci farata yi la topp ne ko nag digal naa la yow sama doom ci li ci li ma xam ci tariqa bi te awma lu ëpp loolu gërëm naa la ngërmaane gu mat sëkk nuyul ma alxabib rasulullah sallallahu waxtu woo duggee ci moom rek nuyul ma ko waxtu woo duggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyul ma ko bul fàtte sa yaay ju baax ji bul fàtte sa mbokk yi góor yi ak yu jigéen yi waaye bul fàtte sa mbokk yi ci yàlla mooy mbokki taalibe yi ñoom ñi nga xam ne seeni xàq bëri na ci sama kaw ci seen rafet ak njort ak ci seeni xidma ak seen joxe seen alal xam nga kii wóor naa jox xaalis ngir yàlla koo xam ne da ko jox ngir yàlla mu jàpp ne yow da am xàq ci moom ndax da nga koo jox te ku ko joxoon ba topp ko ci gannaaw seet li nga ko jox na ko la koy def nga xam ne jox nga koo xam ne am joxal ma yàlla rek la moo tax sëriñ Omar Gueye daf ma nettali mu ne dafa ànd ak Seydi Ali ànd ak benn gan mu indi xaalisam bu bëri nag bu bees tàq jox ko baay sëñ Omar Gueye mu ne bàyyi di ko séddale comme kuy séddale jikku kaamil jukki kaamil pour ñu jàng xam nga mu gaaw jeex rek ngay bëgg mu ne gan gi daal xolam ñagas ci loolu mu yootal Seydi Ali ne ko ah ma foog ne sëriñ bi xamul ni xaalis bi bëree ndax bees gi kayit yi ma fa bees waaye xaalis bi dafa bari de Seydi Ali ko yow foog nga ne yaa gën a baax sëriñ bi lii da nga ko jox ci yàlla moom mënu ko dundale ci yàlla loolu rek doy na waaye la taalibe yi nga xam ne seen xaq bëri na ci suma kaw ndax seen rafet njort rek ak seen liggéey bu bëri ak seen alal yi ñuy joxe ñaanal leen yàlla ñoom ñëpp waaye bul fàtte sa maam sa turandoor man alxaaji abdullahi ndax lépp lu nekkee rek lu rafet la ci yu rafetam yi lu rafet la ci yu rafetam yi xam nga bàyyi kenn la ci Maam Alaaji Abdoulaye kenn la Maam Alaaji am na ñeneen bàyyi nag doy na sëkk waaw waaye nee na ko lépp luñ nekkee lu rafet la ci rëy rafetam yi ndax koo xam ne moo jur moo la fàggu moo la jàngal moo yar moo la ba jamono dara mënul laa jël kooku du bàyyi rek ñuy ñaanal lan la wax fa cheytaani bihi lam yenal azzi jazallahu abdallahi xayran fa innahu hadaani fa cheytaani bihi lam yenal azzi bàyyi na yàl na yàlla fay moomu xiw moo jubal ba nga ne man sama seytaane mënumaa gësam xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa wax ne ñëpp am nañ malaaka bu leen di digal lu baax ak seytaane bu leen di tayalloo ci lu baax ba mu des moom moom seytaaneem fa tuub baay waxut ne seytaane bi fi nekkut fi de daf ne mu fi waaye sama baay moo ma teg ci yoon boo xam ne seytaane bi manut dara manut dara kon defe naa ne ñëpp war di ñaanal xaaj Abdoulaye kon ndax ku am baay rek moo la ko fàggul ku am baay moom moo la fàggul baay baay na ko bul fàtte mbooleem sëriñ si baay a baax kii du sëriñ buy fay sëriñ buy ñaanlu pour fay succès yi benn sëriñ kii du kii du kooku ñaanalaat nag mbooleem sëriñ yi wala ten sa jameel achaax waaye ñaanalal mbooleem jullit ñi tim ñaanalal képp koo xam ne tim am na xàq ci ñun maanaam defal nañu lu baax rek ñaanal ko yàlla delloo la mucc ci jàmm ak koomal ak aj guñ nangu ak dox buñ gërëm ak bàkkaar yuñ baare isalaam ibrahim na xay abdullahi sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa